ñëw ci kaala gi mu amee woon ko ci baat bi xëcc ba nga xam ne àgg na ci metit bokkanam di garab a rek sina Abubakar moo jóg dal ci seen kaw ak jooyam ak def la mu mën lépp ba ñu ba ne ko yarax bàyyi bis ak si na di ci kaaba gi Abu Jahl mooy Omar ibn Hisham dal na Muhammad bis bu nek day ñew ci kaaba gi di julli di këpp jeham bi dem wo kangami makka ni len dana len fegal muhammad bu ëllëgee waxtu wu jeham bi di julli dana fat doj wu rëy woo xam ne ñaar fukki kilo wo xamne duma ko atal bu baax door ko ci bopam mu jeex ñu ciow ko ñetti fan mu wéy ngeen noppalu am jàmm benn bis rek nako dal di waxu ba aksi bi mu duggee ci kuuru kaaba gi rek daal dikk ba xam ne lu toll ak ñetti mètre moo dox digganteem ak kaaba gi daal di kàbbar bi mu sëggee Abu Jahl daal di fab gaj wa rek sakki waaxu ba agsi rek nga fës ko yéenee ci bopp yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu dikkoo ba jub ko rek daal di xër sànni doj wi ne waqat daw xel woo xam ne kenn mësu koo gis ànd ak ñu ne ko yo Abu Hakam lii doy waar yow mi nga bañe muhammad ak mi nga xéré won ci ray ko wax ko ñepp ni nga waxon non nga koy ray fab sa doj bi ñew door ko ci bopam nga dik ba jup ko sanni doj bi daw lolou ko waral mu ne bi ngeen bu ngeen gisoon la dox sama digënté mom dal kuy lo xamné bañam ya yalla na leen ko yalla neub bu ma jëgë won mohammed rek mu lek ma ci sasi bu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam julé ba selmal ñi diko laaj mu ne jibril la def na ko ko ñaari yoon bi xam xamee nag tox toxal nañ leen ba Hamsatu na Abdul Muttalib tuub Omar tuub lor yi wàññiku na ndax ñooñu ñu ñu lañ ci Makka waaye teewul rek ba tey ñu ngi leen di lor lor yoo xam ne jullit ñu njëkk ne réew mi xat na ci ñoom ndax jaaxle ñu gàddaay dem Xabas Éthiopie yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amagul ndigalal génn màkka ci gàttal ba keroog bi ma amee ndigal li fekk na xalaat xalaat yu bon ñu ne daal mënuñoo yebal kenn nit wala ñaar wala ñett ci Muhammad mu di ko rey ndax kenn ku ci nekk am na giiru arab goo bokk te giir googa waa banu dana dal ci seen kaw fayu waaye buñ seetee mbooloo mu bari moo xam ne ay xale yu am doole la doon kenn ku nekk am giir goo bokk gu bokkul ak sa moroom buñ ko tiimandoo ci néegam seen jaas yi dalandoo ñoom ñëpp jiiri arab yépp waa banu hasim duñu leen mën a attaqué ndoo guerre bu ko defee dañuy obligé fayu déye ji ñu fay leen déye mu jeex guddi googu nga xam ne ci la ñu fexe loolu nag la ko suñu borom ne nga gàddaay mu ànd ak Abubakar xam ngeen la xew ci xuntuma mu demee Madina histoire bi jeexul fitna ji ko suñu borom di teg jeexul fiis fii jeexul jullit ñuy itam leen nattu bi leen suñu borom di nattu jeexul ndax xam ngeen ne daraja nu mu toll rek na la natt du toll gannaaw waxuma yonent bi salaatal waaye saxaaba yi ñoom ñi taxawaloon lislaam ba nit ñi di jullee ko woor ba fii nu toll ñoom ñi taxawaloon diine ji booba ba ba saa di taxaw képp ku julli ñu am yoolu julli bu toll ne ba nga ci am ku mu doon ba ba saa taxaw xam ne kon ñu seen daraja rëy na ndax ñoo taxawal lislaam ba tax nit ñi mën a julli mën a woor noonu seen tuyaaba toll suñu borom daf leen koy nattoo daf leen di teg ay tiis waaye ñoom it seenu muñ àgg na foo xam ne lu leen yàlla teg rek mbëg lañ koy def ndax ñoom dee tey ak dund téeméeri ak la ma mën a li leen itteel daal mooy mucc ëllëg li leen itteel mooy ëllëg ñu taxaw taxawaay boo xam ne du ñu ñee kenn te duñu rus ci kanamu suñ borom bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee Madina mu fekk waa Madina ñaari xeet lañu ñaari giir mu la banu Aws ak banul Xasraj ñu nekkoon nit ñoo xam ne dañu daan wujjante dañu daan wujje tedd nga ju ñuy am ñi ci des na leen ko am musiba mu ñuy am ñee reeye leen ko yonent bi fekk na gannaaw noonu ñu teqli ko woon nga xam ne amuñu buur amuñu kilifa kopp sa morom doole rek nangu alalam fekkoon na nag ñu dem ba bëgg a génn ci loolu ku ñu wax Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul di nitoon ku am xel ku am daraja bokk ci ngir Xasraj waa Madina ne nañ ko fal buur ba dem ba liggéeyal ko ndëpp loo xam ne moom la buur yi di sol ci seen bopp ak dangu ne bi muy toog nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw na fekk waa Madina ay arab lañu waaye ay ay gaddi yahood ñoo leen wër waa xaybar banu qaynuqa banu qurayza ak tabuk tabuk sax sori na leen banu nadir wala nudayr yëpp daañu ko wax ay giir yahood yoo xam ne xam ngeen ne yi ñoom ñoo amoon téere ndax yahood yi la ko tàmbale ca yaquba mi nga xam ne mooy sëtu ibrahima yaquba isxaqa ko jur isxaq ibrahima ko jur yaqub nag la ñu tudde woon moo tax yahudi ñu doon wax banu israil la ko tàmbalee ci yaqub ba ci sunu jonni yàlla tey ba nga xamee ne ba ci yonte àla isa alayhi salaatu wasalaam yonent yi fi dikk yépp ay yahud lañu tawraat mi wàccoon ci yonti yontu yàlla daawuda injil mi wàcc ci isa tawraat ci muusa zabur ci daawuda injil ci isa yépp ci yahud yi la wàccoon yahud yi nag téere yooyu ak yonent yooyu ñu daan am te arab yi mosuñoo am lu dul ñeenti yonent te yàgg nañu ba ñu fàtte leen te kenn gisul seeni téere kenn xamu ko tax yahud yi xeeb arab yi tudde leen ummi yoona maanaam ay illettré ñu jàngul ñu mënul xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamonoom bu muy ganee adduna fekk na ñi ko mag tuuti ñu mel na xarb bàyyi Abu Sufyaan ñooy ñi njëkk xam nañuy bind ci arab xam ngeen ne arab yi moomuñu woon bind bi amuñu woon bind ci perse yi la ñu jëlee lettres yi maanaam xaraf yi ñuy bind jamono nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi koy yónni bu ñu wàññee ñi mën a bind ci arab yi ñu néew la doon jamono yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ganee àddina bi muy dikkee nag bay nekk yonent ci ñu nga xam ne ñoo bokk génération ak Seydina Alioune ak Talha ak Zubayr ñooñu baba ñi mën a bind mën a jàng ci arab yi bari nañu mat nañu ay fukki fukki fukk loolu taxoon nag yahud yi xeeb arab yi ñu jàppoon nag jàngoon nañ ci téere yi ba xam ne am na yonent buy war a ñëw yonent boobu nag yahud yi jàppoon ne seen yonent lay doon ci yahud yi lay bokk ndax gannaaw arab yi ma ko waxee woon ñeenti yonent lañu mas am te yàgg na ba ñu fàtte leen te waccuñu fi ay téere ñu jàpp ne bu ñëwee it doon lay doon waa xay waa madina Abdullah ibn Ubay mi nga xam ne moom la ñu bëggoon a fal buur bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee ñu bàyyi ko kooku itam daal di jàpp ne Muhammad moo ko xañ nguur mu bokk ci noon yi gën a mag waaye gannaaw waa Madina yépp dañoo tuub nekk ay jullit moom Abdullah ibn Ubay moomu nekkul koo xam ne ngëm dugg na ci xolam waaye ñemewu ko feeñal mu denc kon ci biir xolam bañ Muhammad ak bañ lislaam mu am ci biir waa Madina arab yi ñeneen ñu bari ñoo xam ne ñoom itam feeñal nañu lislaam di jullee ko woor waaye ñu bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ñu bañ lislaam lañu ñu gëmul yàlla lañu yonent bi mu accès li ñuy wax pacte de Médine la njëkk bind moom la njëkk a signé Abdullah nekkatul xam nañu defatuñ ko buur waa banu Aws ak banu Xasraj ñoom ñi nga xam ne dañ daan rivaliser maanaam dañ daan wujje gannaaw ñoom ñëpp tuub nañu léegi jaloore yi ñu daan ëppalante ak di ko xëccoo ñu jëmale ko ci lislaam waaye yahud yi seen bopp gannaaw ñoom nit ñu jàng lañu woon ñu dugg ci biir jullit ñi di xam seeni pexe di xam seeni secret lu ñu nëbb ñu di ko xam bu ñu jógee di waxtaan ñoom ci seen bopp nañuy yàq diine ji te bañ a feeñ ñu fexeel Muhammad sallallahu alayhi wa ay fexe yu bari fexey rey ko waxtu woo xam ne itam ay alxuraan yi ngi wàcc ñuy wakkaate naan waaw lii ana ku muy tax a gëm ak lii ana ku muy dolli sa ngëm lii wax ay wax rek la ku ne mën na ko lii daal mooy wax yi nga xam ne mag ña njëkk ña daanañ ko nekk rek muy ay caaxaane ki lépp waaye lii du lu jóge fa yàlla ñoom nag ñu nekk ci biir seen i pexe te yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen mbir gën koo jaaxal ndax gannaaw nee ñu tuub nañu moom ay jullit lañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ci masaan def lu ba nit bañ ne nañ la rey mu ne déet naka bu noon yi dee waxtaane naan Muhammad day rey saxaabaam yi kon lu nuy nettali yonent bi muñal leen ñu nekk seeni seen pexe yu bon ci biir yahudi yi itam di ànd ak ñoom di fexe fexe yu bon rek fu ñu toll di fexee rey yonent bi sallallahu alayhi wasallam di yàq ay mbiram mu nekk tiis yoo xam ne ah doy na waar waa Makka itam ñoom it ñu ngi fexe rek képp koo xam ne kii tuub nga te amuloo ku la aar ñu jàppale di la def li gën a bon bari nag ñoo xam ne ci biir Makka tuub nañu waaye mënuñoo gàddaay ndax waa Makka téye nañ leen di leen xor ñoññal ngir bëgg ñu génn ci diine ji rek ñoo ñooñu nag bari tiis bari naqar ak métit loolu lépp di naqari jullit ñi naafeq yi ñu dendal yi ñu bokkal biir réew mi itam te ñu leen a def dara bokk ci la nga xam ne mooy yàq mooy métit seenu dund yonent bi nekk ci diggante yooyu rek muy jaaxle boo xam ne ak métit day lool ba bi nga xamee ne xare badar mooy xare bi njëkk ci xeex boo xam ne diggante waa Makka ak Madina ndax yonent bi sallallahu li mu nekk ci Madina lépp ci ci Makka lépp fukki at yooyu ñett yépp ay alxuraan yi wàcc yëpp daf di jàngale tawxiid rek na nit di gëme yàlla ak yonent bi ak bis bu mujj ba ak na muy jaamoo yàlla rek waaye amul benn aaya boo xam ne day digle ni nga xam ne noonu lañuy yore nguur walla noonu lañuy nekkee ci réew amu ci yonent bi sallallahu alayhi kuñ ci masaan def lu metti it daf naan la muñal rek suñ borom mayunu ndigalal xeex wala xuloo ñuy muñ li leen daan def lépp bi ñu demee nag ba nekk Madina ba amub diir suñu borom nag ne usina lillazina yuqaataluuna bi annahum zulimu wa inna laa ala nasrihim la qadirun may nañu digal jullit ñi nga xam ne xor ñoo ñañ liñ leen bataay lu mat fukki at rey nañu ci ñoom ay bakkan yu bari génn leen seen kër nangu seen alal nangu seen i tool nangu lu ñu amoon seen i marchandise ñu génn seen réew mi ñu juddoo wàcc fa li amoon lépp wàcc fa seen ndey seen baay ñooñu suñu borom may na leen ndigal tey ku leen dóor ñu fayu jullit ñi nag daal di préparé nag wut seen i gànnaay nag léegi fas yéenee xeex xam ngeen ne xare badar li ko waral bi nga xamee ne waa Màkka du bari wu ñuy tool ndax wenn xur rek fa nekk wu xaw a naat li ñuy dund li ci ëpp commerce la mooy jaay ak jënd dañoo amoon nag ñaari rex la waxtu sedd ak waxtu tàngaay bii waxtu ñuy dem. Suuriya maanaam Syrie yi waxtu ñuy dem Yaman di jëndi marchandise di di indi di jaay xam ngeen marchandise mi nga xam ne bu ñu daan demit gëleem caravane yi nga xam ne ñoom lañu daan yóbbu kenn ku ci nekk dangay indi sa alal ne boo demee jëndal ma nangam ñu daal di fay ay nit ñoo xam ne ñoo yóbbu caravane bi ak nit ñoo xam ne ñoo amee ay gànnaay di aar alal jooju bu ñu demee muy góor ak jigéen ñëpp ku ci nekk da ngay fab ci li nga amoon jox ko ñi nga xam ne ñoo yóbbu karawaan bu ñu demee nga wax leen lañ lay jëndal boo ñëwee di ko jaay ci loolu lañ daan liggéeyee li gën a bari ci seenum liggéey nga xamee ne nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom may na ko mu am nag benn karawaanu màkk boo xam ne jóge na Syrie war dellu màkka te ñoom jullit ñi fa nekk ñëpp seen alal yëpp ña ko wacc màkka ñu nangu ko ci kaw néew ëpp leen doole ak dëng ak bañ diine yonent bi nag suñu borom xamal ko ne ko daganal nañ leen marchandise moomu nga xam ne moom la waa Makka jëlee siri di ko yóbbu Makka ndax seen alal yi ñu nangu ak seen bakkan yi ñu rey ak tiis yi ñu leen teg ak naqar wi nga xam ne bi ñu ñëwee Madina miinuñu jawwu jooju xeeti feebar yu bari dal na leen fa ak coono yi ñu leen teg yépp ba ñu sax jaamu yàlla jaamu yàlla gi niñ ko bëggee woon ñoom xam ngeen bi nga xamee ne nag ñoom jéem nañoo dogale njëg moomu Abu Sufyaan dal di jaari ci weneen yoon dem xamal waa Màkka ni leen Muhammad sallallahu alayhi wasallam kat ak ñi mu àndal dogale nañu njëg moomu le te kon na ngeen gaaw ngir xettali seen alal yooyu bu ngeen yéexee daañu ko jël te kon da ngeen ñàkk waa Màkka képp koo ci xam ne kii mënuloo dem fay nga ku la taxawal jox nga ko gànnaay ngir ñu xettali ji alal jooju le ci ni mu gën a gàtte ak gént yi ci am ak ni mu tàmbalee ba fi mu jaar yépp waa Madina bi ñu jógee dañoo juuyoog fekk nañu njëg moomu raw leen ñu dajee nag ñi doon wallu si ak seeni gànnaay nga xam ne ay xeexkat lañu xeexkat yooyu nag nga xam ne ñoom dañoo gànnaay yu bokku ñoo ñi yoroon marchandise mi ñooñu ñooy ahlu badar ñoo xeex ak jullit ñi xam ngeen ne junni lañu ak lu topp jullit ñi di ñetti téeméer waaye ngëm gi nekk ci seen xol nga xam ne dee ak dund la ñuy male xam ngeen ne ñaar bu ñu dee xeex kii sumi mbubam fas ko yéenee solaat ak ki nga xam ne dafa fas yéenee dee moom ki fas yéenee dee mooy gañe naka noonu la ñetti téeméer ñooñu nga xam ne gëm yàlla dafa nekk seen xol noonu la ñu euh, reye dàq junni boobule ba la amoon ñu jël ko dafa ko waa Makka nag am lu leen naqari lool ci gàcce googu ñu am ñetti téeméeri nit rek duma leen nangu seen alal ci gaa ñoo xam ne démb ak bërki démb ñoo leen mënoon yilif leen ba ñemewuñoo julli ci lu feeñ di leen bugal ngir di leen bàyyiloo seen diine tey jii ñooñu xeex ak ñoom ba duma leen ñu def ko gàcce de gën a rëy loolu moo waral xareb uxut ñu dellu gembuwaat nag waajaat xam ngeen ne xare uxut moom moo gën a metti ci xare yi yonente bi salaa sallam xare ci kaw ndigal li yonente bi sallallahu salaa sallam digle woon ci nim mu tërale woon plan xeex bi tey jullit ñi wacc ko tax yàlla na too leen ñu gañe leen ci xare boobu ngañaay lu metti ci lañu ñu ba ñu yonent bi sallallahu alayhi ci lañu ñu reye ci jullit ñi lu bari ba jullit ñi rey ñu ci yéefar yi lu dul fukk ak ñett ni xeex boobu mettee teewul jullit ñi seen ngëm delluwul gannaaw lu néew néew teewul nañu gëme woon ak nañu bëgg yàkkamti woon a dee ngir dem ajjana ngir mucc ëllëg li leen dal tiis woowu yëpp taxu leen ñu yox yoxi wala metti waaye am na jële nañ ci nag xam-xam boo xam ne ay lesol yu leen suñ borom jàngal ci biir Uhud bi nga xamee ne daw nañu wane gannaaw suñu borom yedd na leen yedd yu metti xamal leen ne bari na yonent yoo xam ne rey nañu leen rey ñu bari ñi ñu àndaloon waaye ña des taxul seen gëm wàññi ko lu néew néew taxul ñu dellu gannaaw yéen jullit ñi bi ñu leen waxee ni leen rey nañ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te du dëgg ngeen gëm ko ba dellu gannaaw yox yoxi xamu leen ne bu ngeen delloo gannaaw du ngeen lor kudul seen bopp waaye du ngeen lor yàlla mukk xamu leen ne Muhammad yonent la woon boo xam ne yeneen yonent jiitu woon nañ ko kon buñ ko rayee ngeen dal di dellu gannaaw wàcc diine yàlla ji na ngeen xam ne kon bu ngeen ko defee loru leen kenn kudul seen seen bopp. jullit ñi dal di amaat naqar ak tiis ak réccu fàttaliku it ne xam ngeen ne fettkat yi xare bi dafa am ñoo xam ne ay jaasi la ñuy amee ak xeej amee ñoo xam ne dañuy fett am ñu ay fas am ñoo xam ne dañuy dox. ñoom ñëpp ak seen i gànnaay bu ñu songoo kenn ku ci nekk ak la nga ak ka nga songool fas ko yéenee rey te boo yéefar boo rey xam nga ne suñ borom dana la fay ëllëg tuyaaba joo xam ne du xëj fenn bi suñu borom digale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag mu bi ni koy defee tëral plan bi mu ne yéen borom fett yi day na ngeen yéeg ci kaw doj wii ngeen sëpp xare bi boo xamee ne gagné waa Makka ba dàq leen it fu ngeen taxaw bu leen fi jóg mukk bu wa makka màkk ba jital minute fi ngeen taxaw bu len fi jog mukk na ngeen fi taxaw ba jot ndigal waye lu ngeen meuna gis bum len tax ngeen jóge béréb bi ngeen taxawal taxaw len ci kaw doj wi rek bi nga xamee ni nag ni ñi seen ngëm gogu ñu andal ak malal yalla li ñeufar yi bari bari bari julit ñi dal len di tàmbalee gañe ba ñu wanee gannaaw di daw bam ko defé nak fet kat yi borom fet yi nga xam ne ñoo nekkoon ca kaw doj wa te bi sallallahu alayhi wasallam ne len won bu len fi jóge mukk moo xam nun noo gañe wala dañ noo gañe ñu daal ne ah yëfar yi daw nañu léegi ña ngay jëkkante alal ja nanu daw am ci ñoom ñu ne leen déet yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon na buñ jógee mukk suñu place ñu ne leen waaw loolu xare bi rek a taxoon te xare bi jeex na ñee daw nañu bi nga xamee ne nag ñoom dal nañuy wàcc doj wa daw di jëm si ci bëgg a giiroo alal loolu seen xol dellu si ci alali adduna ba tax ñu woyafal ndigalal yonent bi mi mu leen waxoon ne bu leen jóg fi mukk su borom nattu leen ku ñuy wax Xaalid ibnul Walid bokk ci jàmbaari màkk yi nga xam ne ñoo dàq xeex ci réew mag booba tuubagul mu jaare ci seen gannaaw ndax borom fett yooyu taxawoon mënula doxe gannaaw jullit ñi ndax fas ñemewul ay fett bi nga xam ne nag borom fett yi jóge nañ ca doj wa ngir ñëw di xëccoo ci butin bi Xaalid dal di xam ne lii occasion la bu am solo boo xam ne dana tax ñu jekku jullit ñi ñu dal di jaare ca gannaaw doj wa yéeg wàcc dal di wër jullit ñi ndombo dal li ñu jullit ñi mel ne benn dun bu tuuti bu nekk ci biir géej gi gën a rëy yëfar yi tiim leen foofu seen jaas yi dal seen jaas yi dal seen xeej yi dal di rey jullit ñi ba jullit ñi teqalikoo kenn ku ci nekk réeroog sa morom ba kenn gisatul yonent bi sallallahu alayhi wasallam xàmmeetuñu ana fu mu nekk am ci jullit ñi ñoo xam ne bi ñu déggee ibnu Qami'a wax ne rey naa Muhammad am ci jullit ñi ñu ko gëm ba dal di wane gannaaw dal di daw ne waqit ñooñu bi ñu dawee aw yoonu Makka aw yoonu Madina kon jullit ñi gën a néew xam ngeen am na si jullit ñi ñoo xam ne du ñu daw mukk mukk ak lu mën a am kuréel bu new boobu nga xam ne du ñu daw mukk am ci ñoo xam ne gindiku nañu xamuñu fu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk wante takk nañu seen fit fas yéenee dee nga dégg saxaab yi boo xam ne nee na nun lu ñuy defati ci àdduna gannaaw rey nañu Muhammad yonentu yàlla bi alayhi salaatu wasalaam nanu dee ni mu deewee ñu dal nekkoon nañu nu rey niñ ko reyee ndax gannaawam day yéef kéefar rek ay am waaye njullit dootu am loolu nag bañ ko fekkee gën fekke ko jullit ñi daal di rek sarxal seen bopp ci biir yéefar yi ànd ak njàmbaar goo xam ne ak fit woo xam ne mësula am waaye yéefar yi gën leen a bari seen xel gën a dal Xaalid ibnul Walid jóge ca wet gële màng ña féete yoon foofa kenn xamatul fu yonent bi sallallahu alayhi wa nekk bi nga xam ne Kaab ibnu Malik nee na xel mati na borom bët yu weex tàll yu leer mu xool ko xam ne yonent bee mu daal ni yéen jullit ñi delloo si leen seen xel yonent baa ngi ni yonent bi ne ko nii noppil ba mu ko defee dal di am ci saxaab yi saxaab yi gën a jàmbaare ñu xam ne dañoo dal di dellu si rek dal di koy wër fett gu ñëw ñu aw ko ak seen gën wala seen loxo xeej gu ñëw ñu aw ko ci seen yaram Ali ibn Abi Talib Abu Bakar Omar Abu Dujana Talha Zubair ak ñeneen ñu néew ci jullit ñi taxaw fas yéenee dee bi nga xamee ne ibnu Qami'a yëkkati na baatam ca kaw yëkkati kàddoom ne moom rey na Muhammad alayhi salaatu wasalaam yéefar yi daal di nekkoon jeex na ñu wàññi wàññi ko nekkoon xare bi jeex na yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wuti biir xuntuma ngir dugg ci biir xunt mi noppalu bi mu jëmee ci xunt mi ubay ibnu xalaf dogale ko fekk ubay ibnu xalaf moomu daf daan wax yonent bi waxtu wu dajee ak moom alayhi salaatu wasalaam ne ko yow Muhammad am naa jaasi joo xam ne tooge naa ko weer jënd naa ko xaalis bu bari jaasi ju dis ta ñaw ci laa lay reyee yonent bi sax kon déedéet man maa lay rey bis boobu yonent bi jëmee ci xunt mi ab ubay ibnu xalaf moomu dogale kon ubay ibnu xalaf mooy ki nga xam ne bokk na si ñi gënoon a bañ yonent bi juróom ñi nga xam ne ñoo ci gënoon a bañ Muhammad sallallahu alayhi ba nga xam ne Uqbat ibnu Abi Muayt bokk na si ñi a bañ bi sallallahu waaye benn bis toog naag yonent bi déglu alxuraanam ne ko yow sama kanam araamal na sa kanam dootuma la xool bu ma xoolati yow mi toog ak Muhammad ba dégg li muy wax bu ma jegeeti bu ma la jegeeti moom ubay ibnu xalaf moomu nga xam ne mooy rakki Umayyat ibnu Xalaf mi nga xam ne moo moomoon bi Bilal daan ko génne ba ca àll ba di ko naq ci ndox di ko teg ci kaw doj yu tàng yi ba Seydina Abubakar jënd ko bàyyàlla ko Ubay moom moo dogale yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko dogalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di nangu benn laas ci kenn ci saxaaba yi bàyyi ko ba mu jege rek nee na bi nga xam ne yonent bi yëlbu na saxaaba yi ko jege woon yépp nag dañoo naaw ni nga xam ne xar moomu noonu mu yël boo ba karaw gi naaw noonu la ñu doon naawee bi nga xam ne dóor na lance bi Ubay ibn Xalaf dafa wëndeelu ci kaw fas yu mu waroon ñeenti yoon dal di euh, tag di lang mu agsee ñu gis fu tuuti ci moom di nàcc ñu ne ko yow yaa na sax rek ba lii dong mu ne mu ne wallaay Muhammad bu ma tafali woon sax ma dee newoon na ma moo may rey te tey jii laa dee ci loxoom yonent bi sallallahu jéem a yéeg ci jabalu Uhud alayhi salaatu wasalaam mënul fexe ba yéeg mu bu mu duggee ci xunt mi ñu toogub diir waa Makka yi nag di dellu jóge ci xare bi nag bëgg a ñibbi waaye gëm nañu ne Muhammad sallallahu alayhi wasallam rey nañ ko bi nga xamee nag Abu Sufyan bi nga xam ne moo leen jiite woon yéeg ci kaw doj wa ne yéen yow diw ci saxaaba yi yow diw yow diw yow diw gañe woon ngeen ca Badar gañe nañ leen tey benn ngoog benn ngoog yóbbalu leen nu dara yëg ngeen ne sunu yàlla yi kat ñoo féete kaw seen yàlla ji ngeen di jaamu dimbali nañu tey ne lu tax seen yàlla dimbaliwu leen na Omar daal di jóg ne yonente bi ma tontu ko mu ne ko tontu ko mu ne ko déedéet suñu borom a féete kaw te mooy mujj ndax dëggay mujj kanoo ne ci dëgg loolu ngeen nekk ab jay la ci alkote ngeen jëm Muawiya euh, Abu Sufyaan xàmmee baatu sidna Omar da koy yow Omar ibnul Xattaab maa ngi lay laaj ndax Muhammad mu ngi dund mu ne ko mu ngi lay dégg mu ne ko nag laa gën a ci wax ibnu xamiya mi ne woon rey na ko mu ne ko Abu Sufyaan nag ne ko kon rendez-vous ci weer wi ci bis bi Badar ñu daje di fa mu ne ko waaw kon rendez-vous ci bis bi ci weer wi ñu daje Badar ne ko waaw bi nga xamee ne waa Màkka ñu ngi dem yonent bi sallallahu alayhi ne Aliyun waral sa fas nga topp leen ba ñu jéggi xur wi su fekkente ne war nañ ci gëléem yi di womat fas yi nga xam ne ñu ngay ñibbi màkka géwél bàyyi nañ xeex bi fekkeen nag dañoo war fas yi dañoo noo bëgg dox suñu digganteeg madina ngir dalaat ci suñu kaw sidna alin topp leen bi mu génnee ba sori mu seen ñu war ci gëléem ya womat fas yi di dem mu dellu si wax ko ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kon ña ngay dem nanu ñibbi nga xamee ne yonente bi mu ngi jëm madina waa madina dégg nañu xare bi ni mu mettee dégg nañ ñi ñu rey ci yi ni baree dégg nañ ñi nga xam ne yéefari màkka yi noonu lañ gañee jullit ñi ñu daal di naafiq yi ci biir màkka yi ci biir madina ak yahud yi ñu dal di siiwal wax dëkk bépp ne leen rey nañu yonente ba rey nañu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ay jullit lañu te gëm am jaaxle am lu leen metti lool seen xol yi di bëgg a génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk fab na gëleemam gi jox ko benn waay ne ko nga jubal madina bo demé nga wane gëlem gi len leen gëléemu yonante bi alayhi wasallam ngi ni mu ngi ñëw ño xamné dara jotu ba bi koku aggé nak ñu dal né bam mu leen waxee ne leen yonante bi alayhi wasallam mu ngi ñëw ñu né ko dédét ray nañ ko li gëlemam la xamé nañ ko bu fekkonté né mu ngi dund do do war gëlemam gi muy fitna ju metti ci biir makka ci biir madina way biñu daxal aksi rek bi ñu aksi am na benn xasaa yi boo xam ne ku amaloon yiw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi bi mu dajeeg Abu Sufyaan fekk Abu Sufyaan ne nun de danoo bëgg a delluwaat léegi dabaat Muhammad ndax suñu xel yedd nañu gannaaw rey nañ leen ba ñu ci des bariwul dañuy dem rek jekk li leen benn yoon mu jeex mun defe woon nañ ne sax rey nañ ko bi bi Ibnu Xamiya waxee ne rey na ko léegi bu nu delloo kon jeexal leen rek mbir mi jeex mu nekk suñu jàmm xasaayid bi ne ko déet mer nañu mer moo xam ne mosuñu koo mer te ñi ñëwul woon ci xare bi rëccu nañu te ñoo gën a bari dellu si nañ ñoom it daas nañu seen i gànnaay bi fas nañu yéene bu ñëwee dañu leen di jeexal tàkk bu leen dellu mukk ndax fekk kooka it lim ci jublu woon moo di tiital Abu Sufyaan te tuubul sax waaye yéene na jàmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir tiital Abu Sufyaan ngir mu bañ a dellu si ngir di rey ñi des si saxaaba yi waaye teewul bi nga xamee ne loolu Abu Sufyaan wax am na ñu agsi ba ne yonente bi salaam Abu Sufyaan a ngi dellu si saxaaba yi ñi ci des bari na ñoo xam ne jam nañ leen jam-jam yoo xam ne mënuñu sax a dox waaye ñi leen gën a ñàkk a mettile jam-jam boot nañu leen ngir ñu dellu si rek boo Abu Sufyaan dellu see ñu xeexaat ak ñoom nga xam ne kon ngëmug jullit ñi àgg na foo xam ne dara mënu koo weesu waaye bi nga xamee ne Abu Sufyaan itam waa ji wax na ko loolu moom xelam dalul ci dellu si xeex ak waa moom mu daal di wut stratégie bu mel ne bi nga xam ne moom la xasaayid bi def daje mel ne njëgg ñi fu ngeen jëm ñu ne Madina lu ngeen di wuti ñu ne dañuy jëndi ñam ñu leen gis ngeen naa leen defal sendal yi nangam sendal yi ba mu fees ci ñam bu ëllëgee buñ dajee suuq suuq ukaas ngir ngeen waxal Muhammad ngeen demee tiitalal mu ko ne leen ko Abu Sufyaan dajale na xare boo xam ne xëjul fenn dafay war a ñëw nag léegi jekkali si leen bi mu wax ko yonent bi sallallahu bi ne حسبنا الله ونعم الوكيل سن بروم داي نانو تواكلو نانو سي صحابه يي واخكو لو موي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء يا نبي صلى الله عليه وسلم نينا بوبا ملائكه يي